Bienvenue sur Salam Vision. malik rahmaan la hawla wala quwwata illa billahi alil azim rabbi shrah sadri waysir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bu ñu delluwaatee sant yàlla julli ci Seydina Muhammad ñaan yàlla borom subhaanahu taala yàlla yàlla dégg jullit yàlla yàlla jéggal suñu bàkkaar weer wu weeru màgg bi ñu nekk lépp ci jàmm yàlla may ñu ko di santal yàlla bu baax a baax ci li ñu may ñu fekkee weeru tedd wi ni ko Seydina Muhammad waxoon rek isa xalal xilaalu saal ash wal kursi wa samawati wal ard tuuba li ummati Seydina Muhammad salaa sallam naa ne laa leen karamaat su weer bi teroo aas dafay jaay suuf dafay jaay géej gi day jaay jéere gi jaay benn baat rek la ñuy wax texee ñoom la xaju Seydina Muhammad kon bu yàlla dimbalee bu ñu fekkee weer wi daanaka seetatuñ dara yàlla xanaa sant ko rek waaye di julli ci sama moom bi Seydina Muhammad waxal loo taal la ummati ma fi ramadaan kon laa lan laata man moo sant kulli ramadaan nee na samay xel ñu xamal ne ci njëriñ weeru koor ñoom ñëpp daañu dañ ko ñu yàlla ne at bi yëpp daf ko mu nekk weeru koor laata man moo sant kulli Saint-Louis lépp lu ci jaamu rek yàlla yàlla nangul ñu ko di nuyoo nag di ziar di jiite suñu yëpp xam général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour di ko ñaar yam ñaar gën gudd fanam ñoo ñu ñoo xam général des Tidianes Serigne Mountakha Mbacké yàlla gën gudd fanam yàlla di ko sàmm ak mboolem xale yi ci kaw suuf yëpp dem ba Ndiassane rek fa chandaga da ngay compte ziare ko dafa cene ko jógee cene dem yow dañu seen bu ñu jógee dana dem bàyyi ñun Tigre Baye dañ ba yoof nuyu mboolem xalifa si kaw suuf yëpp ñaanal yàlla yal na yàlla gën a guddal seen fan yal na yàlla gën a sàmm leen yal na yàlla gën a wattu leen di ñaanal kilifa aada yi nag président de la République Sénégal yal na yàlla dolli ko jàmm ak mboolem ku ne ci réew mi soxla yéen yàlla nag mooy joxe damaa ma joxewul tabarakallahu ñu ñaan rek yàlla ci lu jàmm yàlla jàmm yokk bi yaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu DG bi tabarakallahu di seen sax di ko ziare di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla doon taxaw te yéen a ngi fi def seen émission sa seen émission al di jeudi bu njëkk à partir de 18h ngeen ànd ko bi nga xam ne moo di ziare ñëpp di baal di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan borom subhanahu wa taala rek yàlla doon ñu dëgëral yàlla doon ñu dëgëral weeru ko ñu bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ko génne alhamdulilahi rabbil alamin tey nag ñu ñëw fii tey ci alaayu waxtaane di xam ak xamle di waxtaane mbaax lan mooy mbaax seen na Muhammad laa doon saxaaba yi leen man dëru kon mbaax def lu baax ak mbaax mu benn nit mën naa moom teewlu mu def lu baax waaye def lu baax taxul nga baax maanaam nag mbaax la ñuy laaj lan mooy mbaax moo tax bi saxaaba yi dajale ko kenn ku nekk sa morom Ababacar tiim seen naaw ba naan ko yaa baax Omar tamit Seydina Ali nan ko Ali tamit Seydina Ousmane nan ko yaa baax di wax sa morom yaa baax yaa baax yaa baax boobu Rasulullah mu seen biir nu ko leen déglu bàyyi leen ñu koy joxante rek kii naan diw yaa baax kii naan diw yaa baax kii naan diw yaa baax Seydina Mohamed itam xam nga rek bu jékki Omar naan Ababacar yaa baax Ababacar xale nan Ababacar yaa baax kenn ku ne nan sa morom yaa baax Seydina Muhammad jékki-jékki rek ni Ababacar man biir bu Ababacar maa ngi dégg nga naan diw daa baax la bu luy baax Ababacar mu ne ko yàlla suulaay mbaax la leen laaj xam tey ma amoon problème mille francs am problème dépense mille francs amul ma dépense moom ma ñëw sa kër nga mel ne mille francs ma dépense ko bi mi am beneen jur gi yàlla moo ko gën a soxla laaj ma ko ma jox ko mbaax mu nu weesoo allahu akbar nit ñi dañuy denc léegi ay junni junni junni junni di bëgg lekk dërëmu jaamu yi naan dërëmu jaamu kenn koy ne yaa ngi denc yére bi nga sol rek mën naa jar lu mu dee dee dee dee quinze wala vingt mille waaye foofu tool yaa ngi jaamu yaa ngi yor téléphone mu yor trente cinq mille quarante léegi dépassé nañu leen téléphone trois cent mille cent cinquante mille rek la ñu yor fa la fekk yaa ngi kii am problème mu mille jox pour jox njabootam keneen ñëw bu ñu ko soxla mu fàtte njabootam joxoo kii di këppul kees allahu mu jël mille francs jox ko njur yàlla boobu lan la ko su fekkee mbaax fukk la Ababacar loolu benn la ci kon loolu sori naa wax bu fekkee mbaax fukk la ci bu ñu loolu benn la ci wax ko ci wax ko ñett la ci wax ko ci wax ko ci daf ne ko su fekkee mbaax fukk la loolu benn la ci ki am problème mu 1000 francs pour jox sa njaboot keneen ñëw gën la koo soxla loolu benn la ci allazina yunfiquna amwaalahum fi ka masali xabatin anbatat sab'a sanaabila fi kulli sumbulati mi'atu xabatin wallaahu yudaa'ifu liman yashaa yàlla ne képp ku joxe benn fukk laa la koy fayee ñu ne ko fan lañ koy xoolee misaal bi mu ne ki doon jiw dugub ba mu sànnee benn perte la waaye waaye bu dugub taxawee gàmmalee def man yàlla mu mën loolu su ne laa mën naa leen rek ko mën a ku def benn ma fay la fukk mu ne Omar lan Omar ne ko nga fekk jur gi yàlla bu doon def am problème lu yaas amul lu mu fayee ñu koy génne nga fay ko ci suuf te kenn xamul ne yaa ko fayal mu duggaat ci biir kër ñu léegi balaa ñuy mën a defal nit rek ñu woo ko ci télé yi wala ci rajo yi wala ci pénc bi waaw léegi nag ñun les jours yu raaxul la lay def te yàlla ne njëstal képp kuy def ngir lu neex doomu aadama yi jàppal ne xaw ma ci dara ma yàlla ay duma nga ci lu ci waaye ma ne yàlla xaw ma ci waaye ñu a may ne laa dugal may rek waaye nga mën a dem ci ko rek am problème dépense laaj ko rek mu génnee junne jox la jomb na loolu waaye boo demee ci télé mu wane dugal cent mille wala deux cent mille di ne la boo joxe sa loxo ko war a waaye balaa ngay joxe nga xam ne joxe na waaw mu ni koo xam ne ko lu génnee lu yaas amul lu mu fayee nga ñëw fayal ko biñ ko fayalee kenn xamul yaa ko fayal damaa jàpp moo leen wax Seydina Muhammad ni ko Omar mu ne ko la bay mu ne ko bu fekkee mbaax fukk la loolu benn la ci mu ne Ousmane ba may mbaax Ousmane nekk nga bàyyi ba guddi jot ñëppay nelaw nga wàcc sa lal gerte sa lal gerte sa soxna taxaw ay naafila di fa séenee naafila ba fajar mooy daa ko wax tatajaafa junuubuhum anil madaaji yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaan wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun falaa ta'lamu nafsun maa uxfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa bimaa kaanuu ya'maluun yàlla ni ñuy taxawal ay naafila guddi di ko jaamoo yàlla kenn waxul na nga naafila guddi ñu xëy suba ñu la sàmm yaa ngi yaa ngi dëkk dëkk wala sax foofu ran nga ne maa fay ay naafila rek yàlla na soxla mu bëri yàq na ko soxla nga waaw sàmm sàmm foo ne woon ay naafile rek bàyyi def ay naafile rek ne ba xam ndax kii wax moom moo ko jox wala moo ko defal nee na boo ko defee soxla nga koy wax nit ndax man yàlla maa ñu ne képp koo xam yaa ngi taxawal ay naafile gudd li la yàlla fay yow xiyam malaaka xamu ko jinne xamu ko nit xam ko yenn xamu ko falaa taalamu nafsun maa uxfiya lahum min qurrati wax nee na kenn li ma lay fay denc la kenn xamu ko. ko na ci yàlla désal ni ci yàlla désal doomu aadama ba pare léegi yàlla wërsëgal na ci ci dimbali jaar yi mu ne Umar mu ne Ousmane mu ne ko Lambey mu ko bu fekkee ma fukk la loolu benn la ci mu ne Ali Ali ne ko Lambey mu ne Ali lan may mbaax Ali ne mooy nga fekk noonu lislaam bëgg jaay lislaam doole nga génnee sa jaasi dal ci kawam dal boobu ngay dal ci kawam. bëgg lislaam bi ci kaw man jàpp naa ne loolay baax seen na ma xam ne ko àndil mu ne ko laa bay mu ne ko bu fekkee mbaax fukk la loolu benn la ci ñun ñëpp ñu jaaxle Ababacar wax na ñu ne ko bu fekkee mbaax fukk la loolu benn la ci Omar wax na ñu ne ko bu fekkee mbaax fukk la loolu benn la ci Ousmane wax na ñu ne ko bu fekkee mbaax fukk la loolu benn la ci Ali wax na ñu ne ko bu fekkee mbaax fukk la loolu benn la ci ñun ñëpp ñu jaaxle. ne ko yaa Rasulallah man dëgg kon lan mooy mbaax dëgg dëgg lan mooy mbaax man dëgg mu ne al birru husnul xuluq ni ko mbaax dëgg dëgg dëgg bu rafet jikko xam nga bu nga def yooyu doo rafet jikko mën ngaa fekk ni soxla nga may aaral may ko xaalis mën ngaa taxaw ay naaf la guddi mën ngaa protéger diine bi ngaa fay ni luyaas fekk na si sa jikko rafetul mu ni ko baax dëgg dëgg dëgg mooy rafet jikko li nga yéene sa bopp nga yéene ko say morom li la say morom gën a bëgg nga jox leen xañ ko sa bopp sama loolu jafe na rek ah kenn ku ne jàpp nga yàgg na sa morom kenn ku ne jàpp nga ne fi nga jàpp moo baax fi keneen jàpp baaxul ah kenn ku ne yaa ngi xas sa morom kenn ku ne yaa ngi saaga sa morom te jikko bi ñu laajee Seydina Asa Seydina lan mooy jikko yi Rasulullaay dafa ne huwa alquran jikko dëgg mooy alquran karim kon jullit da ngay rafet jikko ay diw lii laa diw laa la xatta chrétien laa la ci waxatul nag kii wax laa ilaha illa allah ni yow di wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah moo tax ñun bu ñu jàppee ni Sidna Mohamed diine la taxoon jug dañuy nax suñu bopp Sidna Mohamed humanité boo ko taxoon jug nit ku nitee nit ku nitee boo nitee nag ñëpp ngay ñëpp ngay mën a defar waaye boo nitewul nag foo waxee ni ngi def seen loxo seen njëriñ bari na fi borom xam-xam yoo xam ay dof lañ maanaam fu ñu waxee wax koy teg fu ñu waxee wax koy teg fu ñu waxee wax koy teg maanaam yàlla waxoon mukk ni bu waxee dafa ni wa yasalu al na ñoo xam ne laaj leer rek ñu tontu la waaye bu leen topp mukk ndax boo leen toppee dugal ci wax bi waaw kon jikko jikko ju baax mooy mbaax yàlla na yàlla xeeti jikko ju baax yàlla na yàlla sàmmaloo boppam yàlla na yàlla teel boppam yàlla ñu yàlla dëgëral bi jëri Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad nee na nee na saxaaba yi ni leen maax dëgg dëgg dëgg dëgg mooy rafet jikko nit nag boo rafetee doo iñaan doo soxor doo jëw doo wagar doo doo doo rambaaj doo xom si yoon doo dugg si yoon nëwu koo gis jàpp ne kooku moo la gën koo gis jàpp ne kooku moo la gën waaye koo gis jàpp ne yàpp ndax nga sa bopp nit da ngay rafet jikko dama koy faral di faral di wax ci toujours ni jikko ji rafet ma koy faral di wax ci daal ci émission yu bare bare bare bare xam naa nit ñi daañu wax noonu bëgg naa xis sa bopp mooy xis seen fàllu bi mooy bi ko waaye bi ko rombee néew bi te mu nekk chrétien seen fàllu xool ko mu rafet trop ni ñu ko defaree mun waaye kii fii kii nga rafet rafet na waaye fu mu jëm ko gën a rafet waaye waa ji dégg ko ci ni ko ni ko sëñ bi ñu julli seen fàllu gën a ko ne boo ko guddee ñu ko Mbàkke ñu jëlee mu ne ko loo ko ñaanal waaye xañ na fa xañ naa fa xañ na fa kay bàyyi ko mu dugg fa rek nga xam ne ko loolu mooy rafet jikko xoolal loolu xoolal boobu jàngat koo xam ne baatu da daa wax baatu laa ilaaha illallaah mu romb luñ ko luñ ko defaree mu rafet mu rafet lool xam nga ñoom kër tey bu ñëw bu seen néew ci def ay fleur yu ne fleur yu rafet bi mu rombee sëñ Fallou nii sëñ Fallou taxaw terrasse bi waaye kii ni ko defaree fa dafay waaye fu mu ñëw wax gën a rafet waaye waaye dina ko Mbàkke di jullit sëñ Fallou gën a ko leen wax rek mu ne ko Mbàkke di jullit sëñ Fallou gën a ko leen wax mu ne ko Mbàkke di jullit mu ne ko waaye loo ko iñaane xañ na fa xañ naa fa xañ na fa dañ ko yéene rek loolu mooy jikko ju rafet loolu mooy xasul xoox xoolal boobu jàng lan lañ ci war a jàng tey ñun lan lañ ci war a jàng tey lan lañ ci war a jàng tey ñun waaw lan lañ ci war a jàng tey keroog sëñ Babacar waaye yore leen di sëy wala ji rafet xoolal nit yi dañuy jël jikko yi rasulullah yemoon na bilaa mën ni wa yem si maasiya dara lay may du la ñaax wala góor gi ñëwoon si moom par par weer bu ne wala ñaar weer bu ne bu ñëwee sëñ Fallou sama sama jawar am na doom sama jawar am na doom sëñ Fallou jël dugub bu bari ak xaalis jox mu dem nekk li ñu wax yow dara am mu dem toog daal neex ba neex su ne sëñ Fallou kenn gënu ñu ko lu tax moom mu nett bi boppam li doon def sëñ Fallou mu xëy ñu jël benn doom bu tudd baaw rek di ko dañ ne ma ziare sa ma ziare sa baay Fallou waaye bu ñu àggee su ma la waxee Fallou rek ne Mbàkke pourtant suñu Fallou xam nga ne dina ko bàyyi ci su ma su ma la Fallou rek ne Mbàkke la Fallou ne Mbàkke bi ñu ñëw ba ci salle bi sëñ Fallou ay gan xale yi dafa di foo ñuy di fo mu dugg ci biir ñoom de suñu faam ne ko indi naa sa turandoo suñu faam ne ko anam mu ne ko mu ngi toog suñu faam ne ko moom mu ne ko faam xale bi teg mu ne ko faam xale bi teg mu ne ko xanaa faam day wax xale bi jógee mu ne ko faam baabu kan laa tudd suñu faam ne ko tuddal faam bu gën a jikko yu rafet yooyu yooyu la ñu war di nàmpatal di ko delloo si waat di ko jàngale ñu yéenante jàmm laabal suñu xol yi wa tahir min qalbi wa tahir qalba من حقدك ومن حسدك وكل واstiqzaal min al-aqdaar alaa mansuura nee na laabal leen seen xol si iñaan ak soxor ak bépp melokaan boo xam ne yàlla gërëmu kon fa wax Allah ni ñu teel la woon ci waxtu mat na ñoo ngi jégalu ñëpp di baalu ak ñëpp balaa ñuy daane rek di nuyu suñu sëriñ boobu nekk ba jaare di sëñ jaare Bousso di dem ci maam Thierno Bousso di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla gën a guddal fanam maam Thierno maa ngi lay nuyu bu baax a baax a xam naa boobu léegi maa ngi wàcc ngir pour ñëw Mbàkke waaye yàlla dogal ko waaye maa ngi ziar bu baax a baax baax baax di nuyu film musul bi yëpp di leen ziar di leen baax baax di leen ñaan yàlla yàlla gën a dëgëral leen di leen yàlla gën a sàmm leen musul bi yëpp Serigne Cheikh Bousso ñëpp laa ni xaati bi ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baal wax ñëpp di ñaan ñëpp jàmm tabaarakallaahu di nuyu sama sëriñ Serigne Babacar Sall di dem ci Maodo Fène si di ko ñaan yàlla yàlla gën a gudd fanam di yàlla gën a sàmm ko moom tabarakallah bu ñu ñëwee sëñ Babacar Mbengue nekk ba Zane Ba moom la ko yónni ko ziar te ñu ñaan yàlla yéen doon taxaw ko nuyu fa tabarakallah pax ma koy ziar ko moom bu baax a baax a baax a baax pax ma maa ngi lay ziar te ñaan yàlla yàlla doon ko sa pax yéen yàlla gën a sàmm yéen yàlla gën a wattu la bàyyi laa suñu bopp di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw mi ngi sëñ Sane sëñ bi nag mi ngi sàmm mi nga xam ne doon réalisé émission bi sax nuyuwaat